wa sallallahu ala seydina muhammadin wa sallama tasliman mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla ca na mu gën a ware julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca na mu gën a selle ginnaaw loolu man la Modou Moustapha Ndiaye di euh, noddukat ci Grand Mosquée Massalikul Jinaan noo fas yéene amal émission boo xam ne mi ngi jëm ci njàngalem nodd ci nan lañ koy defee ah, ci melokaani nodd yi ah, ak yiñ ci war a seetluwaale yépp yooyu yépp émission la boo xam ne bu soobee yàlla incha allahu taala dinañ jima leeral yooyu yépp nag kon mbokk yi gaaw leen abonné ci Tawfekh Production jeudi bu nekk danañ ci ànd ak yéen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.